loolu tey wàññeeku na soulagement la beneen bi ci topp mooy bu njëkk ba le poste de premier ministre gis nga ne amoon poste poste premier ministre léegi mënatoo ko wax parce que da nga daan def ci règlement intérieur bi le premier ministre et son gouvernement mais léegi mënatoo wax le premier ministre et son gouvernement da nga naan le gouvernement loolu tey léegi wane na ne loi yi nga xam ne sunu président de la République son mu ngi ñu koy indil loi yu am solo ci réew mi modification bu fi def mu xelal ko jox ñu ko ñu teug ko bokk ak mom xelal ko ñu defar ko am na njëriñ ci askan bi ndax a bi millions ño daan woté té bureau yi daana minuit mais tay juroom benn million di woté bureau yi di des millions heures du heures alors assemblée fi luñ fi indi buñ ko woté ñun député yi fekk nañu xalaat ko examiner ko xamné ne askan bi fi mais loru askan nekku fi ndax askan bi daan loru ci voté ñun dañ daan toog seen kër waaye man duma sax voté ji parce que lu ko waraloon mooy da nga ñëw yendu def 1 heure de temps def 2 heures de temps def 3 heures de temps wala yendu toute une journée do mën a voté boo feeb ñu borom tank yu metti yaangi ci ña feebar ñaa fi kon loi yu ñuy indi rek na askan bi xamna ne seen xel dal loi bu ñu jox fii danañ ko defar danañ ci xol seen jëriñ lu jul seen jëriñ ñu jënd ko tek feulé alhamdulilah nak ba règlement intérieur bi inshallah allah rabbi ñun ñëpp d'accord nañu changement bi la ca dess mo ñu waxtaane ko buñ ko waxtaanee ñu duggal point yi liggéey bi commencé assemblée ubina ñu won askan bi ñun ñu fi pour seeni soxla ñu ngi fi aussi pour déglu leen ñu ngi fi aussi pour accompagner leen ñun te ñi nga xamné ne ñoo jóge ci département yi joggé ci commune yu sori yi ñun ñu ngi waxtaan ak suñu population ñu ngi waxtaan ak waa réew mi ñi nga xamante ne ñoo soxla tali ñu soxla courant ñu soxla ay hôpital ñu soxla école ci yooyu lañu fas yéenee di dox te incha allahu rabbi yooyu danañ ko plaider fii ba nga xamante réew mi dana jëm kanam incha allahu rabbi